chers internautes 313 digital ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay di am mbégte à chaque fois ci ànd bi nga xam ne yéen a ngi koy ànd ak ñun ci suñu ay programme di leen jaajëfal bu baax a baax euh, ñu di leen dalal jàmm rek ci seen actunet lépp lu gën a fës ci actualité yi euh, rawatina ci wàllu people dañ koy partager ak yéen comme ni ñu koy defee à chaque fois rek euh, yooyu actualité nag dañ koy daal dooree ak ki nga xam ne moom mooy oustaz Modou Fall di liggéey fële ca TFM ñu gis ne que fële fa daal di dalaloon benn entretien ñu gis ne euh, ca poñ ya nga xam ne maa ko doon waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy journaliste euh, bokk na ci maanaam euh, troisième candidature ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall moom nag lam ca tontu c'est très simple ndax ma ngi cay àddu kom tontu ba nga xam ne ñu ci ëpp ci Sénégal yi am nañ ko ndax ma ngi koy xamal ne ko man mi nekk oustaz di liggéey fële ca TFM buñ demoon ba ña nga xam ne ñoom ñooy waa TFM taxaw carrément ne ma kat oustaz ñun nga moom day daal di jël ay bagage am dem euh, comparaison boobu nag mu fa def defe naa ne moom jàpp na ne que euh, na nga xam ne benn parti ci population bi ñu ci bari taxaw nañu temb pare euh, pour wax ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall ne ko doyal nañ ci yow parce que bii mooy sa bu mujj moom bu sañoon moom président Macky Sall rek day daal di bàyyi képp koo xam ne aussi war nga bokk ñu bàyyi la nga bokk waaye ma xam le ne ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko mën nañ jàpp ne que kéemtaanu suñu borom la parce gis na Euh, fi nga xam ne moom mooy jaar-jaaram euh, gis na aussi euh, acharnement wala xëy injustice bi nga xam ne à chaque fois dañ ko koy teg ak xañ bi nga xam ne bëgg nañ ko ko xañ moom Ousmane ko pour mu nekk candidat ci élection présidentielle en tout cas moom Oustaz Modou Fall position mu rafet na ndax dem na ba naan ki nga xam ne moom mooy président bu ma amoon benn message boo xam ne dama la koy lancé du la wax leen dul maanaam gis nga nekk coowal troisième mandat day indi fitna wala daf fi indi xëy na ay ndaw di si ñàkk seen bakkan bu ma sañoon nga daal di koy teg ci suuf suuf ak képp koo xam ne war na bokk rek nga daal di ci euh, bokk mu nekk loo xam ne en tout cas euh, moom AVM joxe na ko bu baax a baax ci li nga xam ne moom mooy une euh, troisième candidature président Macky Sall waaye ma ngay pour injustice wala xëy na la ñuy teg ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ñu teggit ko parce que jàpp na ne que Ousmane Sonko comme ni ma ko waxee sànq kéemtaanu suñu boroom la waaye tamit nekk na nit koo xam ne ku jàmbaare la ba bañ ca jógee aussi mu daal di àddu ci xëy na ñagas ñagas bu ndaw bi nga xam ne amoon na ci diggante moom oustaz Modou Fall ak ki nga xam ne moom mooy euh, oustaz Pape Anne ak ki nga xam ne aussi moom mooy euh, mami ñoom ñëpp di liggéey foofu noonu ca TFM ndax gannaaw émission ba nga xam ne defandoo nañ ko ñu gis ne que amoon na fa ay jàpp-jàpp moom euh, oustaz Modou Fall lam ca xamle ba ko journaliste bi nekk dafa mel ni que da nga siis ci plateau nangu bokk ak kenn plateau moom la mu xamle nee na mësul siis ci plateau waaye en tout cas day gis ne <coughs> du toog ak ki nga xam ne xëy na peut moom jàpp na ne que lépp loo indi euh, day indi aada daal di koy teg parce gis nañ à chaque fois bu waxee ne que yàlla nee na lii yonent bi nee na ni ñoom mami dañ koy indil euh, li nga xam ne moom mooy ay waxu ko si ñun la bokk nee na moom loolu du ko mës a nangu en tout cas waxu yàlla waxu yàlla te na moom à fois bu toogee euh, daf fay toogal ki nga xam ne moom mooy yàlla dem na sax ba yëkkati ay kàddu naan mami sama xarit la woon kon mën nañ jàpp ne jamono ji moom relation wala xaritoo ba nga xam ne moom ak ki nga xam ne moom mooy mami Linguère amoon nañ ko mën nañ jàpp ne que jamono ji euh, nekk na loo xam ne xëy na diggante bi demeetul noonu euh, buñ ci jógee aussi ñu enchaîner ak ki nga xam ne moom mooy Pawlish Euh, defe naa ne yéen ñëpp xam ngeen ki nga xam ne moom mooy Pawlish Mbaye gannaaw moom aussi euh, bañ koo dalalee ci benn entretien gis nañ euh, kàddu ya nga xam ne moom Pawlish Mbaye daal dina ko yëkkati jëmale ko par rapport ak manifestation yi nga xam ne dañ koy nemmeeku fii mu am ci réew mi ñu laaj ko ci rek mu yëkkati ci ay kàddu ndax ñu ci ëpp dafa am koo xam ne dañ ko ko doon jaawaleel parce que gisoon nañ koo xam ne dafa def ay rasta daal di tent li nga xam ne moom mooy cat bi ñu gis mu yor ay xeet di ko sàndi bañ ko ca laajee nag moom Pawlish lam sa tontu defe naa ne leer na naañ ndax mi nga xam ne ni que euh, moom déjà euh, dafa mi yóbbu ay bëtam baaxul euh, gàtt na aussi te xëy na amul doole te ñëpp xam nañ ne que man Pawlish dama ragal li nga xam ne moom mooy policier kon defe naa ne même bu ngeen tëddoon ba guddi ñu ne leen man Pawlish nekkoon foofu noonu di manifester defe naa ne waroo leen ko mën a gëm te sax ndaw ñi nga xam ne dañuy dem di manifester c'est parce que dañoo conscient wul mais bu ñu xamoon maanaam li nga xam ne moom mooy valeur xëy na bakkan ak ni mu fooree ñoom duñu dem mel ni kuy tayle seen bakkan bakkan parce que mi ngi dem ba naan euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ci ñàkk seen bakkan da ngay gis ne que fois booy xool seen âge rek da ngay ne que xale yu ndaw lañ kon loolu moo lay won ne rek conscient wuñu nañu bàyyi xëy na euh, dem di def li nga xam ne moom mooy ay manifestation defe naa ne nee na fële euh, ca biti réew bu ñu amee lu leen metti am na neneen nu ñu koy kaasee nu dul génn di jàmmaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy takk déedéet en tout cas moom Pawlish kàddu yooyu la yëkkati daal di koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñooy manifestant yi moom aussi mu daal di ci problème problème bi nga xam ne amoon na te ku ne Pawlish euh, ñu xam ko bu baax a baax ci cooté ki nga xam ne moom mooy euh, Wally nekk artiste ñu gis ne que à chaque fois ci soirée yi nga xam ne Wally daf koy tëgg moom dañ ko fay gis ñu gis ne que euh, Dôme de Paris ba nga xam ne moom Wally ma ngi ko doon amal fële ca Paris gannaaw sabotage nga xam ne amoon na ci ba moom Wally mu daal di ci àddu daal di tuddee ñooñu rek ay kàddu yëkkati ci ay kàddu tuddee leen ay petit ne leen bés bu ngeen fexee ba maanaam ànd ak man di ngeen xam ne kat mooy cooki fin bi ñu gis ne que Pawlish euh, ba ko journaliste bi laajee lu tax teewoo fa te à chaque fois ñu la doon gis ngay teew euh, ci soirée ki nga xam ne moom mooy Wally Seck moom lam ci àddu rek mooy maanaam euh, bëggoon na xëy na jaam yàlla ak jaam ak yàlla ak dogalam xëy na am na ay gàntal yoo xam ne moom moo ko teree dem mais ne yëkkati na ay kàddu nee na que ñi nga xam ne ñoo nekk fii Sénégal benn parti bi nga xam ne bëgguñu Wally à chaque fois xëy na dañuy gis gistal di def comme si bëgg nañ ko moom lam leen di wax nee na leen kii mënoo leen ci dara ndax ku ne xam na ne mbër mu yàlla sàmm doo mbër mu yàlla samp doo daanu te moom jàpp na ne que euh, Waly Ballago Seck mbër la boo xam ne yàlla da ko samp kon defe naa ne euh, moom Pawlish nee na ko tuuti ngeen lool ci saboote li nga xam ne moom mooy euh, soirée waale li ma koy wax rek mooy mu gën a taxaw na mu taxawee te xam ne sénégalais ñu ci ëpp xëy na parfois dañ koy siiñ mais bëgguñu ko au fond mu ngi noonu en tout cas loolu la yëkkati ci kàddu ak li nga xam ne jotoon na xew fële ca doom de Paris ñuy wax ne aussi ki nga xam ne moom mooy Waly Seck daal dinay teew gannaaw defee ay sabotage foofu moom ñëpp si na ni kii démb si guddi ñu gis ne aussi euh, foofu noonu ci aéroport ba ñu ci bari ci sénégalais ña fa woon euh, bañ euh, ga xam ne amoon na foofu doom de Paris parce que nag nee nañ ñoom lu ñu bëgg-bëgg Sénégal waale moom moo leen gën a bëgg Sénégal parce que gis nañ acte yi nga xam ne yàgg na ko def mu leer leen ne kii bu bëggul woon Sénégal du daal di def yile acte ñuy dénoncé bu baax a baax ña nga xam ne ñoom ñoo defoon loolu buñ jugee ci loolu nag ñu dem ci ki nga xam ne moom mooy mooy euh, Serigne Mara gannaaw démb ba ko waa euh, fa jiri invité ci émission boobu ñuy dippee euh, li ci dëkk bi moom Serigne Mara Niass daa dinay àdduwaat bu baax a baax daa di def rek benn analise wax li nga xam ne moom la xalaat ci réew mi parce que mi ngi xamal ne que ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall lii mu gis nii ci nguuram mosu ko gis ci nguuru kenn parce que nee na mosul gis xëy na ci nguuru ki nga xam ne moom mooy maître Abdoulaye du ñuy daal di tëj ay kilifa diine wala xëy na dem ba ñu ci bari amatu amatuñu euh, fitu wax li nga xam ne moom la ñu xalaat ci réew mi dem na sax ba naan euh, ña nga xam ne ñooy toog à chaque fois di bàkk ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall di yëkkati ay kàddu di ko taggal ay maamam dañuy gis ne que à chaque fois euh, kenn du leen teg loxo wala kenn sax du leen wax ne que yéen seen bët bi suufa ngi ci mais gis na ne que ñi nga xam ne ñoom ñoo faree ci kujje gi wala ñi nga xam ne ñoo ànd ak ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko gis na ne que à chaque fois ñu waxee rek dañ leen di daal di jël si yóbbu la fële fi nga xam ne moom mooy ca prison ba ndax daal ñoom euh, Nick Doff ak xam ne moom mooy Serigne euh, Serigne Bara Ndiaye ñoom daal dina leen ci lim mu nekk loo xam ne moom jàpp na ne que euh, la tax ñu yóbbu leen fa nga xam ne moom mooy ca prison ba jàpp na ne que politique rek daal nee na li nekk di xew ni ci réew mi jàpp na ne que dictature la gën li nga xam ne moom mooy démocratie ba mu ca jógee aussi mu àddu bu baax a baax ci ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko parce que moom Serigne Mara Niass mi nga xam ne que Ousmane Sonko na nekk na nit koo xam ne moom moo jàppale ndaw ñi wala xëy na moom moo tax jamono ji ñu toll ndaw ñi am bu baax baax li nga xam ne moom mooy éveil des consciences parce que gis nañu que euh, bu njëkk ba xëy na ndaw ñi la ñu taloon mooy maanaam dem soirée lépp lu ñu liggéey ci weer bi après benn jour yamale ko dem ci ay euh, programme wala dem ci ay caaxaan mais depuis boobu moom maaraañas mi nga xam le ne que bépp grand place boo dem da ngay gis ne que ndaw ñi pétrole la ñuy waxtaanee gaz nan la ñuy def ba xëy na fexe euh, xool suñu réew nan la ñuy def ba mu développé ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñu ci bari ñu ngi ciy gërëm ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko parce que gannaaw moom euh, moo tax ñu bàyyi ay caaxaan yu bari xam ne que euh, dëkk du ay caaxaan parce que dem na sax ba naan moom Serigne Mara Niass ne que régime bi nga xam ne moom moo fi nekk moom usmaan Sonko moo tax euh, ñëpp xam ne que ñoom ay caaxaan lañ fi nekkee te defuñu dara loo xam ne day jëmale réew mi kanam ma leen di jaajëfal bu baax a baax su leen suñu mbokk internet yi di leen wax rek ngeen di wéy di abonné waaye tamit di bës ci cloche notification bi ndax ngeen di mën a jot suñu ay xibaar di leen jóg jox dig daje niki ci kanam incha allah ci yenn actualité d'ici là porté vous bien.